baa ngay oustaz baa nga nekk koo xam ni yaa ngi yëngatu ci kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam awul dina ñëw sa kër seet si la baa ñu invité la incha allahu rabbi tey nag ñu ngi ñëw ci suñu soppee suñu sëriñ suñu xarit suñu oustaz al oustaz Pape Makhtar Sylla oustaz Pape Makhtar ñëpp xam ko ci Sénégal ak adduna bi yëpp ndax liggéey gi muy liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nag bu ngeen gisee baas bi seen xel day dem ci lu rëy ndax oustaz Pape Makhtar ñëw def ak moom émission waaye tamit ñëwaale mu defal ñu ay ñaan ndax dafa jóge ci yontu bi sallallahu alayhi demoon ziyaare ji yontu bi sallallahu alayhi ñun nag waa El Vision ñu ni kenn duñu fi jiitu ci nganale gi ñëw laaj ko oustaz lan la jëlee Màkka lan la jëlee Madina kon eh, sama caméraman ñu dugg ci biir ah daal di xool oustaz nu mu toogee. loxo kay mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek ba tey ñu ngi ci émission bi nga xam ni mooy émission Euhlou Nabi ñu seet si tey nag euh, kenn ci waa kër yonent salaa salaam muy Oustaz Mamatar Sylla gis ngeen waxtaan bu am solo bi nga xam ni moom lañu ñu defal. ñu ngi taxaw nag koo xam ni xaritam la soppeem la léppam la foo gis Oustaz Pape Matar Sylla di nga gis Adama Taw ñu bàyyi ko nag moom mu joxe ay kàddoom yi nga xam ni moom lay euh, wax ci Oustaz Adama bis ba loo xam ci Oustaz ak euh, Oustaz yan qualité nga xam ci moom. waa kay Seydina Omar ñu ngi lay nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di baalu àq ñu ngi leen di baal di ñaan yàlla yàlla yàlla boole jéggal euh, ki ñu laaj li ñu xam ci moom. fa tabaarakallaahu lu bari lool la waaye dañ ciy wax lu tuuti rek ñaanal ko yàlla balaa boobu tamit li nga xamante ni moom la defe woon muy farata joo xam ni yàlla gàll na ko bépp jullit boo xam ni mën nga ko yàlla na ko yàlla nangul su ko nangulee lay fay ga yàlla na ko yàlla jotal ak mboole mu jullit moo xam ni demoon nga foofu ñi fa bëgg dem te demaguñ fa yàlla na leen fa yàlla yóbbu ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko ci yàlla tegal fanu gudd lool wér ak barke ci njabootam ah fa tabaarakallaahu kontaan nañ ci trop Omar comme ni ci ñëpp kontaane yaakaar naa ni oustaz ba mu yëglee ni day war a dem Makka képp ku ko yëg rek sa xol bëgg na ci loolu ah, képp koo xam ni mënoon nga ko defal di nga ko defal man de li may wax yàlla xam na ni bu ma nit ne woon ma yóbbu la Makka ak yóbbu oustaz yéen ñaar kenn laa ci mën a yóbbu kon dama ko naan yóbbul ma oustaz man ba ma fi beneen yoon xëy na yàlla mën na maa yóbbu ndax euh, ñoom ci seen bopp méritoon nañu dem màkk parce que ki nga xam ni mooy toog di jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nekk mën a jàngal nit lii aj lépp ba nga xam ne mel ni ku dem màkk kon kooku moo yelloo dem Makka kon ki ko fa yóbbu tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla fay oustaz daal ku baax la Umar ku baax la ku baax nag ku baax rek lañ ci mën a wax léegi sëriñ Mansour si war borom daara ji waxoon ni ba ñu ko laajee xudar yonent la wala déet nee na sëñ Babacar daf leen ni woon daal yonent yi ñu baax lañu te xudar ku baax la kon daal ku baax la oustaz ñu ko. macha allah ah, soxna sëriñ aadama ah, Taw macha allah kontaan nañ ci témoignage yi nga xam ne moo def ci oustaz Makhtar Sylla kon. dañuy euh, dañuy gëstu gis ki nga xam ne moom mooy soxnaam di soxna Ndeye Diop di aawoom soxna Ndeye jóob ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw ñu ngi lay nuyu Seydina Omar bu baax a baax di la ziar waaw di la wàccee sa wàccuwaay Oustaz moom li nga xam si moom lépp ñu ko wax waaw wax dëgg yàlla bis bi moom jomb ko bisam la da ko waraam am ko ñu ngi ko si ñaanal yàlla yàlla na ko jig yàlla na kaala gi raab wax dëgg yàlla Oustaz ku ñeme njaboot la ku bëgg waa këram la. waaw boo ko bëggee jàpp rek jaarale ko si njabootam wax dëgg yàlla. ok soxna Ndeye su ma la bëggoon laaj tey nag ngeen dundee ak oustaz ak programme yu bari yeeg euh, tukki yu bari loolu nag ngeen dundee ak moom. waaw loolu macha allah loolu dañuy xam ne rek loolu la ko yàlla cërale dañ si ànd ak moom waaw ndax oustaz euh, daal ñun am nañ confiance ci moom moo tax. heure su ñëwee rek baax na heure bu ñu ko gisee rek baax na wax dëgg yàlla waaw. kon daal euh, mu ngi noonu kii ngeen jàkkaar lool moom mooy aawam di soxna Ndeye Diop. di aawam di xaritam di léppam euh, xam naa tamit noonu la ñuy demee ci ki nga xam ne moom mooy ñaareelam di soxna Kiné Padane gars yi ngeen topp ma ma ki Kiné fu mu nekk. waaw kay mbokk yi comme ni ma leen ko waxee léegi rek ki ñu taxawal di soxna Kiné Padane di soxna euh, al oustaz Pape Makhtar Sylla di ñaareelam Kiné lan nga ñuy wax ci oustaz. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah Omar ñu ngi lay nuyu di la ziar di kontaan ci waa waa kër gi. Kontan nañ bu habas baax ci émission bi wax deug yalla akhna oustaz mom li ci mën wax bari na li ñëpp wax rek moy ku baax la ku ñu yërëm la moy suñ borom kër deug yalla am ku ñu sutural la ku ñu teral la kuñ kontan ci mom la ñu koy ñaanal rek Kalam gi yalla nako rappal ak jam ak mboolem julit ñi kontan bu baaxa baax tamit ci yow ak émission bi yalla nako yalla jëmele kanam kontan nañ bu baaxa baax. lan ngay wax ñi El media ak lo leen di denk xanaa di len dénk rek ñu sétane ko ndax wax di yàlla émission yu am solo lay lañuy tek ma sha allah. yalla yalla dool su tour yi sha allah daal contane nañ daal suñu xol dafa sedd guuy ba ñoo wax suñu xol daal sedd ci bëssu tay bi motax tax daal suñu wax ta bari Omar yow daal baye nañ la lepp dila ñaanal yalla nak yow yalla na la yalla yegalé yalla yalla yegalé la ndax yow borom baax nga merito nga lepp merito nga sax fenen ak ma sha allah yalla yalla defal la jaam defal ko waaw kay waaw kay alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi comme ni ma ko waxee sank rek ci suuf euh, tay ñu ngi seet ci suñu oustaz Pape Makhtar Sylla suñu sëriñ suñu soppe macha allah rabbi tey nag mu ngi def li nga xam ne moom mooy ganaleem waaye ñu ñëwaale ci ngane gi def ak moom émission boo xam ni dafay nekk spécial Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam balaa may bàyyi dara damay bàyyi oustaz Pape Makhtar Sylla mu daal di nuyoo ak yéen. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. hajj Omar maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu mboolem yi nga xam ni ñu ngi seetaan. te di ñu seetaanee ci site bu am solo bi Hadj Omar. waa kay Aliou Sass Pape Matar Sylla tey El Vision Média ñoom ñoo la seet si woon ngir bëgg a xam li nga xam ni yàlla may na la ko ci wàllu xam-xam mu jëm ci xam-xamu diine xam-xamu tariqa waaye xam-xam li nga xam ni moom la fi yéen di salaa salaam bàyyi woon te mag ñu baax ñi tamit jàngat ko fi oustaz lan mooy sa diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw Hadj Omar sama diggante yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy li war jullit bu nekk rek ak sa diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi moo ni waxoon ni kep ko xamni ni nga ma yo mal qiyam ma gew ñoy bok nek aljana ci fel gogu nek mo dox sama diggante ak yonent bi alayhi salatu wa salaam ma sop ko lol comme ni ko jullit yëpp soppe loolu itam moma xiron moma xirtel ma xiirtal ba ma demoon madinatul munawara ziar yonent bi dem màkkatul mukarrama def sama farata Haji Omar Oustaz Pape si la dañ koy gis ci gàmm yi di ko gis ci conférence yi ak euh, lépp xew-xew boo xam ne xew-xewu diine la Oustaz Pape Makhtar Sylla nekk koo xam ni euh, macha allah yàlla bu yàlla euh, indi cat yàlla yàlla sàmm waaye Oustaz programme yi ngay am ak gàmm yi ngay taxawee Oustaz xam-xam bi nga fiy génnee Oustaz fan nga jàngee. waaw man bu dee njàng mu njëkk mu gën a suufee loolu maa ngi ko def ndar. ndar laa jànge ci benn jolof-jolof bu tuddoon Baye Ngañ kooku moo ma dalal ak magam bu tudd Baye Jibi Siin ñoom ñoo ma dalal ba Siin ni Mara fofu laa jànge ba fa laa jeexale alquranul karim jàng foofu itam xam-xam waaye nag sama njàng mi tax ñu naan njàng dëgg ak fi nga xam ne si li sama dund ubbeekoo ci leeru xam-xam loolu maa ko jëlee ci gu tedd góor gu màgg góor gu baax muy Baye Alxaaji Diop bii nekk fii ci sam-sam kooku ci la yàlla ubbee sama dënn ci la yàlla feccee sama làmmiñ. Oustaz euh, gis nañ ni maanaam programme yi ngay def ci wàllu kër Seydi Hadji Malick ci wàllu xilaasu zahab Oustaz lan moo tax nga bëgg xilaas ak programme boo dem rek maanaam di nga wane sa cofeel ci xilaasu zahab. xilaas mooy yonent bi. sallallahu alayhi wa te nit dafa war a am cofeel ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xilaas ki ma ko jàngal sëñ Mansour moo ko ko jàngal. سن منصور سن ألينجي كوكو جانجل سن ألينجي سيد الحاج مالك موكو جانجل من لولو تخ مو بغي خلاص زاد نا خلاص مو يونين تبي كو بغي خلاص رك كوكو بغي نغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاج عمر استاذ ما شاء الله دينغن الاستاذ ما تاسيل لي مو واخ في مو جار في مو جانغي واخ نغاكو دينغ لو واخ واخنا في مو جانغي ييب اك ليغا خام تاميت موكو خير تي وقتاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك نيم كوي أنا مو خلاص ذهب كو خام خلاص خام خام استاذ ما تاسيل xam ni mu bëggee Xilaas Zahab euh, oustaz ñu ngi koy suivre ci lépp oustaz ñaata bay xilaas nga ñu mën a firil tey ci jotaay bi nga xam dafay jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax émission bi ñu ko tudd émission ëllëg na bi muy waa kër bi sallallahu alayhi tey nag ñu seet ci kenn ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy oustaz Pape Makhtar Sylla jàngat yi nga am ci xilaasu zahab yan bayit moo ci gën a neex ak ban buntu moo ci gën a neex boo ko doon firi tey ji ak nga ñuy tànnal ci émission ëllëg bi واو حاج عمر خلاص موم بنت يبقى منخ إيه، اللي تعمل فنوري بنت له فنوري يبقى منخ وايضا بين بيتي خلاص الذهب بيت بوب النخ لما لول في شغل حاج ما يدوخني أعدت حب الرسول الله محشرتي لكي يلاقيني في أول الظلم من اللي يوم القيام ما عندي واجل بريباري دارا موي تشوفل جيما سوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله بريباري يوم القيامه ndax lan ngir yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole ma ci kuréel gi muy njëkk a jàpp ci seen loxo tàbbal leen aljana loolu bayit boobu bokk na ci bayit yi ma gën a neex ci xilaasu zaab Hajj Umar. Oustaz euh, Oustaz dama demoon euh, ziare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na yaakaar naa yonent bi ku ko soppul doo ko ziare ji Oustaz jugee euh, fële nga xam ne moom mooy Makkatal Mukarram di dëkk bu tedd ba waaye ziare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def li nga xam ne moom mooy xajam Oustaz lan la jàngee Makka ak li ma jàngee Makka ak Madina mooy dëkk la boo xam ne dëkk bu tedd la dëkk la boo xam ne mboolem dëkk yi ñoo ci gën a tedd li ma jàngee Madina tamit jàng naa ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku ko teral yàlla teral la loolu laa fa jàngee ndax Madinatul Munawwara soo fa demee Hajj Omar jaww ji moo gën a teey jaww Makka niti Madina ñoo gën a teey niti Makka jàkk ji yonent bi tëdd donte jàkk jële moo ko ëpp doole ji nekk masjidul haram waaye jàkk ji moo gën a dal jàkk ji moo gën a set jàkk yonent bi moo gën a laab rawdu yonent bi soo fa toogee rawatina ci tàppi boobu nga xam ni moo taxoon muy wax maa bay ni miin bari wa rawdati rawdun min riyaadil janna soo fa toogee benn diir bu tuuti rek lu mel ni nelaw moo lay dugg da ngay nelaw danga da fay toog sax doo ñaan sa soxla ngir cofeel gi nga am ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Màkka daal ak Medine dëkk la yoo xam ni dëkk yu tedd la dëkk yu màgg la dëkk la yoo xam ni jullit bu nekk war naa ñaan yàlla xaaji Omar dem fa. oustaz sunu maam Seydi Xaaji Malick dafa am benn bayit bu mu wax mu ni min kulli wasfin xamidin xaaza af ala tafdili rajaul baraya yow musdaxami oustaz bayit boobu noo ko déggee. bayit bi day wax nekk ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbooleem luy xeetu mbaax luy xeetu teraanga loo gis rek lu rafet lu baax lu sell lu teey lu tabe. fa ci nit ña yam foofu la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee loolu mooy afala tafdil ci arab nga xam ni fi nit ña yem ci loolu fa la Seydina Muhammad moom tàmbalee jëm ca kaw loolu la sa maam Seydi Hadj Malick di wax ci bayit boobu Hadj. waa kay mbokk yi macha allah gis ngeen tey nag euh, amate nañ mbégte jàkkaarloog suñu soppe al Oustaz Pape Matar ndax yaakaar naa ni. ku dem ziyaare yonent bi salaa salaam buñ ne sopp nga yonent bi salaa salaam kenn du ko weddi kon oustaz ban kàddu ngay tàggatoog waa El Vision maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan lii yàlla na jëm ci kanam ba nekk télévision bu mag boo xam ne àdduna bi yëpp dañ koy gis ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa kay mbokk yi kon oustaz balaa ñu tàggatoo moom nag ndax dafa jógee fa nga xam ne moom mooy ca madinatul munawwar ca rawdu yonent bi salaa salaam te yonent bi salaa salaam waxoon na ne sama rawdu moo gën a teey du yëpp sama suuf gi may dox moo gën a neex moo gën a nooy suuf yëpp ndoxu madina moo gën a neex ndox yëpp waaye tamit jawwu madina moo gën a sell jaww yëpp oustaz balaa ñuy bàyyi balaa ñuy tàggatoo ak yow il faut nga ñaanal soppe yi oustaz lan nga doon xalaat ni war naa la ko laaj te laajuma ko. et Omar xam naa li ma waroon laaj yëpp laaj nga ma ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla defal ñu tawfiix defal leen ko defal ko mbooloom julit et xam naa ñaan gi ñu bokk jàng fatiha jàng salaatul fatihi def ko di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan liggéey bi ngeen sumb yàlla na ci yàlla teg loxoom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf mbokk yi doon seetaan seen El Vision Média seen mbokk Omar Samb. moo ñëwoon ci émission ëhlu bi ak ànd ceeg oustaz bu mag boobu oustaz Pa Makhtar ñu ñëw nag fekk fi mbokk yi ak xarit yi am du jàmm yëpp tey ko fu waay sànni baatu mu tak ndax oustaz dafa demoon ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa ndax nag waaye yonent bi sallallahu bu jógee ci yonent bi nit yi yonent bi ñoo koy teeru fii ah, bu ngoonee incha allah ku ñëw fii di nga xam ne oustaz liggéeyal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal na Seydi Hadji mag ñi fii laay tàggatoo ak yéen nag seen émission bu mag bi di leen joxaat dig daje incha allahu rabbi ba beneen émission ci ëhlu nabi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu